gunge ko gannaaw day soog a tollu ci dal te ku am gan bu dalee wax nañu ne bu fekkee kii ganale xam na charte yii tax yii mat ñu ne ganale na la ca jëkk mooy su koy gatandu mu wan ko xar kanam bu leer su ko wanee fa muy dal ba mu teg waxande wam yor mu japp ci loxom wan ko kay ba wana wa mom lañu wara jikko won wan gan dal di koy wan nda budé jamono tay fiñi fi ñuy denc ndox yu lip lu ko fa neex jël yalla na fa lu dagan lepp lepp nag lu dagan ne nak la fa nek lepp yalla don lu dagan euh, diggante boobu nag muy kër kër yi di ko wan yi mu koy wan ndax bëgg mu jariñoo ko te ndax moo taxoon mu def ko fa wërta yéem wërta tàmbale gun a tàmbalee yéem a gun lu mu def ci ngan gi waaye kañ lay seet lu mu def ci ngan gi day bàyyi ba gan nga yewi ko ba noppi moo tax ginnaaw dañoo toll ci dalal weeru koor koor gi ñuy woor ci bëccëg bi ak baatu koor li mu àndal lépp su guddee ñi ko yàlla may te ku ne war na ko jéem lu mu nee mu def ay rakka wala mu dem ci jàkka ji ñu def ay rakka def fay rakka ne waa jàkka ja wala yi mu joxe mu tudd sarax wala alquran jëm ciy jàng wala xasida xasaid yim ciy jàng salawaatu ala nabi ak ñaani yépp lu bari bari bari bari bu tax mu geesu dara ndax lum def ci lu bax lum bari bari ta yàlla tax liko yàlla yabalal ci xewal gu may jarño moko upp fuf kon euh ñak mur yàlla ñu ci yàlla musal ak perte yàlla ñu ci yàlla musal munta raw lu melne wéru kor ñëw nga xamne yàlla daf ci ful ak daamu yàlla ak pay daf cay tëj bunti sawara daf cay ubbi bunti aljanna ba noppi mel ne daa am ñoo xam ne yëguñu ko tinuñu ko dañ cee nekk nit ci nit ñi nekk rek waaye yëguñ ca dara amuñ ci benn yëg-yëg loolu mooy lan mooy su bëccëgee ñu ne wàtt di nelaw duñ nangoo faste xànc ak moroom ma loo wax ñoo nañ bàyyi ba kër gi sedd nañ xaar ba ci kanam te duñ def dara fañ nekk itam dañ fay toog rek loolu musiba mënu koo féete kaw ci bëccëgu weeru koor waaye su guddee it eh, guddi lépp dañ koy fokk fokk mooy bañ a nelaw nuñ koy defee dañuy fexe ba guddee reer lool suñu reeree it dañu fay nekk ci yu bari yoo xam ne dara neexu ci yàlla la ca jiitu mooy mariage ak bëloot wax nañu ne li fi li fi dugg ci dëkk bi ak lido ñetti xeet yooyu li fi dugg ci dëkk bi li fi dugg ci dëkk bi ci weeru koor ay xaalis bu bare cay dem boo xam ne waa dëkk bi ñoo koy génne jënd ko ko di ci dàq seen koor wax nañ dëgg di ci dàq seen koor dàq koor gi muy dem koo xam ne bu ma saan jub sëñ bu mag bi day day bind bind na ba tàyyi ay abyaat yuy wan nit ñi ne leen am na koy bëgg a ñëw ñi dégg sëriñ bi xam ne koor gi la ñi ko dégg tut suñu leen koy wan ñi di koy daal di gis fa saasa kooku dafa daan woo koor ba mu ñëw mu téyeeku jariñoo ko bàyyi ko mu delluwaat ndax mënut a ñàkk dem dafay ñëwoon day delluwaat waaye dugg si Tuuba ñu fatt ko moo ñi ko waat bëgg a dellu loolu bokk yal na ci yàlla musal waaye ñi mënta bëloot mënuñoo mariage mënuñoo lido it ana lu ñuy fanaane li ci ëpp mooy seetaan télévision télévision yoo xam ne dañ naa ne dañuy dundal guddi gi guddi gu weeru koor waaye ana lu ñu koy dundale fa ñu koy dundale mooy fi ñu tudde grand théâtre grand bokk yi ñiy wooteel seytaane ñépp fa la ñuy dem waaye grand théâtre gaafam rafetut ñiy woote te seytaane di ko fekk ñépp fa lañ jëm waaye bu koor gi ñëwee it ñay woote naan dañuy dundal sunna seydina muhammad seydina muhammad waxuma seydina muhammad seydina muhammad lañuy wax wala mu ñenn ñi ne waaw dëgg wax nañ dëgg kuy su kuy dundal sunna Seydina Muhammad ma mën ngaa dem Grand Théâtre te li koy li lay xamal ne du Seydina Muhammad waaye Seydina Muhammad lay war a doon mooy ba fa seytaane woote ñañ woowoon ñépp tuddule tudde leen ko tudde leen ko te ñooña bari na ci ñoo xam ne tey soo leen bettoon na leen tusbaar ñaata rakk la mën nañ ne tekk dara koo xam maanaam baaxoo wuñ ci jël tisbaar ak takkusaan te danañ ko tuddee ñoo xam ne it far ñoom duñ waruñoo xam tisbaar ak takkusaan ak timis ak gee ndax bokkuñu ci diine ci waaye bu ñuy wootee waat sunna seydina Muhammad it ñooñe la lañuy woowaat kon lu wutale grand théâtre nuñ koy xàmmee ne ñii diine lañ nekk ak ñe nekkuñ ci diine fañ koy defé fenn fe ñañ fay wo ñen ñe rawati na wéru koor bi am ñu ne xàmm gi seen télévision di xol kuy tag ku ne day tag Seydina Muhammad xana Sidina Muhammad kon lay wara doon waye muñu nekk Seydina Sidi ci arab moy til Sidi moy til ak Sidi Sabanta wal Qataa wa Jawraxi Sidina Alasul Sidina Muhammad nit ne xam ki télé bi di ko xool léeg-léeg mu wax loo xam ne dana xaw a niru tuuti alxuraan léeg-léeg mu wax lu xaw a niru tuuti waye gaa yu baax yi am tëgg feelu ko ay fecc kat ya doon fecc démb ba seytaane woo tey ñëw di ko feelu ñuy maye xaalis def boppi neen ak yarami neen ñoo dañuy dundal koor gi nit na ci xam ba ñeenti waxtu ñu ne jóg leen waaj mu jóg waaj lu muy waaj fas khad lek lek sax la koy tudde ba suur daal di këpp këppal ñaar raka togat ci yenen télévision yi jox xibaar te ku ne mën naa mën na caa joxe xibaar ta da woron ku ne mën na caa joxe xibaar ku mel nu nek su noppé daal di fatu nak fas nelaw beccëk bi ba julli takusan wessu mu génn dank ndànk wat takusan bokk yi googu koor yàlla nañu ci yàlla musal mooy daa lekkut bëccëg bi rek waaye lu mu lekkutoon ci bëccëg bi wala mu bañoon koo def ci bëccëg bi dabaatal na ko ci guddi ga kooku day nan di naan yàlla nañu ci yàlla musal moo ne weeru koor day weeru farlu la woon ci jaamu yàlla jaamu yàlla ga ca gën a réy weesu wut nangoo joxe sa bakkan ba ayat suñu borom ba rote ne lil lilladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir alladina uxriju min diyarihim wa min diyarihim bi gayri xaqin illa an yaqulu rabbuna allah ñoña fàtte nañ dañu wor ba yàlla dogalee ne léegi am ngeen digelul fayu léegi amutut yox yoxi xare ben ci xare yi gëna siiw bi ko jullit yi def dañoo wooroon koor lañ ko booleel ñenn ñi ñu rey leen ñu yóbbaale seen koor ñenn ñi ñu jam leen ñu doxe ca faatu wéraatuñ ñenn ñi wéraat nañ waaye taxu leen a dog ak seeni nàcc-nàcc ak seeni jam-jam yu metti bañ leen bëggee jox ndox ne leen naan leen ndax deret ju bare ji dañ ne abadan dañuy wéyal suñ koor yëf yi du caaxaan aayaat yu bari wàcc na ci xare yooyu doon am alxuraan mi ngi ñuy wax ne di dalal xel yi ñi nga xam ne dañoo xëy xëy ñàkk seen baay ñàkk seen mag ñàkk seen rakk ñàkk seen nejaay ak seen baay yu ndaw yépp yéefar yi di leen ñaawal naan leen da ngeen di wax ne ku dee dem àjjana ku dee xanaa ñu sul ko ngeen di wax kay يلا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ci lay wax seeni melokaan ba naan mooy ñi nga xam ne lu jamono xat bu len digelu yàlla dabé amutuñ ragalu kay amutuñ ci tukay dul dañuy wax na rek lu yàlla wax dañ ko def ñoña la leen yàlla dig yàlla ñu ci yàlla boole waye ay caaxaan du ko maye. ci ayat yooyu lay wax banan alladhina qala qaala lahum nnaasu inna annaasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu xasbuna allah wa ni'mal wakeel fanqalabu bi nicmat bi nicmati min allah wa fadlin lam yamsashum suun واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ام نيو واخني سي سيدنا حمزه لا واتون اي بوب مو دي دانغلي سي خرب احد غاي رانيو خول نكو خولال غاي ني باري تا باري ماتريال مو ген خول لين ني مان سما بد تيك مست تيكو سي لوماي راغال تي بوكي euh xew-xew bu rëy boobu ñuy wax di fatxu makka ginne dem dugg makka génne xërëm ya fa nekkoon ci weeru koor la amoon kon weeru koor damaa woor du ak pal ba tax nit ki daa war ne watt wattaaral bëccëg bi lépp du def du dindi bu lu mu waroon def ci bi mu ko naan ko waxtaan ko seetaan ko télévision dem fatu jiwaat xel yi mat naa delloo si bu baax kon benn ci xare yi gën a mag xare Badr ci weeru koor la xewe woon kon ana layu nit di mën a am gannaaw sax dañoo nekkoon ci ab tukki départ nañ mag Madina war a dem euh, dogale ji njëgg mu jógee bilaadu Shaam jëm Makka ndax amuñu woon ngàntul bañ a woor ci kuy tukki te xamoo ko ngay wàññiku te war a dox distance bu toll ne Makka ak Madina ah kay waaye déedéet dañ ne dañuy gàdde seen koor kuñ ci rey mu dem aljanna mbokk yi euh, ñooñu suñ dëkkee ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax ñuy dégg muy def ñi gisit war nañu mëna jëfëndiko le Serigne Touba waxoon Serigne Touba neena na su ñëwoon ci kaw su fekk fi ben jeexit jum mëna topando toppandoo yonent bi royé ko lu suuf si la doon dox asman si ya ko timon gëm na ne ci pas-pasam war na ci mëna dem ba ag fa gaay kon wéru koor wéru ñambar la war doon ci abdulit weeru farlu la war a doon weeru kër kër yi ku ca doon liggéey mu yokk ab liggéeyam di liggéey waxtu yam daan liggéey te fekk mi ngi ko boole ak jaamu yàlla gu foor gu gaayee boole woon ak ay fit ak i xeej bañ fekk ko fi waaye bokk yi weeru koor it weeru tab la war a doon ci ab jullit am na ñoo xam ne kenn mënu leen a gis bëccëg ndax dañ naan ñiy laaj dañoo bari moom yonent bi moo gënoon a tabe xeetu luy joxe lu nekk misaal nañ ko tabag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu ko tuddee ne moo gënoon a tabe géej gi ci li muy joxe xeetu yi ñuy génn si dugg ci géej gi di ko ci jël ak sang gi ñu ciy def ak tànk gi ñu tànkatu yóbbu sa dara du ci sikk ñu ne déedéet géej ku demut ba àgg fa mu nekk mën ngaa bañ a xam ak walla ñu demal la ca waaye daa mel ni kay ngelaw lu riddi xiinu ngelaw wu jóg fu waay mën a nekk dana la fa fekk lu mu ruqe ruqe loo tëj tëj tëj su ngelaw lu jàllee danga xam ne ngelawoon na ndax danga gis pënd bu bari boo xam ne doo xam fu jaar nee nañ nag bu weeru koor masaan ñëw ca lay raw loo wax baat ak lay doon duna demal bu suba duna demal ba ngoon loolu it bokk yi mat naa bàyyi wàlla xel ci weeru kor bi te moo ne yonent bi day yàlla newoon na ko toppatuma la dara te moo ne ñun yi ñuy lañ cey jublu mooy barele bu ëllëgee lu baax lu ne gàññ ba man ñoo faral suñuy rëcc rëcc ku yàlla ne toppatuma la dara moo xam la nga defoon wala li ngay defe ci kanam moo doon jëkkante bu weeru koor ñëwee lu baax lu nekk moo cay man ñépp ñun ñi nga xam ne duñ ñan nag bokk yi duñ ñan xaaju guñoo jaar ci yoon bay dabe ji am na ñu war a def saa su nekk bis bu set ñu takk suñu laxasaay jàpp ne maanaam ngoon duñu fi bàyyi waxuma la suba di ñu fi fekk waaye nag bokk yi ay tomba ngi nii yoo xam ne ñett ba ñeent la yu gàtt yoo xam ne it ñi nga xam ne am nañu kàdd gu kawe seen loxo war na ca dugg lu ko mooy euh, bis dina ñëw jàppante maxtume mën naa am bokk yi weeru koor wi balaa tàmbali danañ dégg ñu bare bare bare bari di bàyyi xel dëkk sangam rawatina fu ci mel ne Tuubaa kañ la ñuy um junjoon nañ ci ba weesu ko suñuy weeru wooree ñu ne kañ la Tuubaa di um di wori seen baat bépp ñu tënk ko ci Touba ba am na ñoo xam ne sax fu sore sore lañ nekk waaye bis bi Touba di um la ñuy um donte tegewul ci xam-xam ñooñu nag bokk yi waa Touba am na lu ñu leen ameel dinañ ko gungee ci koor gi naan leen ay ca ak déedéet moytu leen nangam def leen nangam yi may bëgg a wax bokk na ci tudd naa grand théâtre léegi bis bu sët nga gis ñu ne bis sangam dañu fa def conférence waaye bokk yi conférence yooyu moo gudd yooyu ñu tudde si Sidina Muhammad benn la ndax conférence boo xam ne waa ji koy def euh, maa ngi jox cir borom xam-xam bu baax borom xam-xam maa ngi ko jox cir bu baax waaye nee nañ daqaar maccinu daqaar dana tax daqaar weex conférence bu ñu def ci diine ci weeru koor bi di ko defee grand théâtre grand théâtre moom dàq naa ko ba noppi ci conférence bu diine ñaareel ba sàppe si ci kanam ay jigéen a ciy toog ñoo xam ne xamuñ weeru koor ak lu weeru koor sàppe see góor ña nekk ca jàkkaarloo ak jigéen ñi ci biir weeru koor bi moom léeg-léeg mu dox ba dugg ci biir jigéen ñi ñu tàllal ko mu teg ci loxoom def ci poosam ba yàgg mu naan waa fee yëngutuwuñ ak waa yëngutooguñ ak ñii ñoo ñee ak fee moo moo dàq fii loolu jën diine la loolu ñi ñuy déglu ñëpp am nañ ci wàll ndax seenub liggéey la ma gàttal ko euh, conférence yoy itam euh ki nga xamne mo koy def dañ koy théâtre lo rek ndax da ngay dégg ñu naan diw dafa waxtaan wi neexna na waxtaan wi am na ndariñ lañu wara wax ak jàng nañ fi waye waxtaan bi waxtaan bi neexna ngay yooyu wolof sax kenn xamul wolof fi lu doon ak suñu conférence bi tudde nañ ko diw tudde nañ ko diw tudde nañ ko diw do ci dégg kenn ko am maanaa bu ñuy lim ñu am maanaa ñu ci diine it dañ leen dugal ci biir lim boobu rek war leen tudd tudd leen waaye taxuñ leen a jóg ña ñuy lim mooy koo xam ne bu ñëwee day joxe enveloppe bu baax buñ nappee ginnaaw mën na koo jëlee fu nekk jox leen ko ngir ko ab daram ñoom itam bu ñu fa jógee lu leen neex lañ cay def te moo ne ci weeru koor lañ occasionné wu daal di koy wut ba am ko ñaareel bi nga xam ne warees na cee wax. moy carte gi ñu def lo nit ñi ci biir waaru koor wi diko jaar lek ci téléphone yi nan la so defé nangam ak nangam ci sa téléphone fekk am nga crédit man nga gañe nangam di tuddu yo xam dañ ko soxla ci koor gi man nga gañe gañe gañe mom sa xasse ba dugg ci biir man nga gañe man nga ñak loolu mo tuddu carte deug moom so xasse ba yone ben SMS rek ta fekk da nga bëgg a ya yaa ngi carte té mo ne carte ak sangara lañ boole benn aaya xaraamal innama alxamru mooy sàngara wal maysir wal ansab wal azlam ansab ak azlam ak maysar lépp mooy carte donte ay façon yu bokkut la ñu ne nag ci biir weeru koor bi nañ profité ñoom am ci xaalis bu bare bare bare bare suñ dajalee ab million dagg ñeent fukki junne joxe ko jox ko ñu wooroon ñu lekk ko te ku da wara Allah ñaan yalla fekk koor gi di jeex lu muy dog mu doon lu dog lu muy dog rek na doon lu lew mu jaamoo ko yalla wotel ñu ne la sukkur koor xana sukkur sukkar da am sin kaf ñu sadda ko sukkar mom lañu def ci wala kafe waye sukkur sin, suñ masla maska lonk ak kaf guñ mas maska nek mooy màndite sukkur sukkurun wa irmaun wa junuun boo boo amee danga am sukkuru score wax nañ dëgg ndax loolu kenn waru ko lekk ab jullit di woor di carte di ko dunde kon SMS yooyu itam jullit yi war nañ cee bàyyi xel bu baax ak fi mën a nekk baaxut dañ leen di lekk looloo xam ne deesu ko lekk ab jullit du carte di lekk waaye li ñuy joxante itam ñu tudde ko sukkaru koor sukkar moom lañuy def ci ataay wala café waaye léegi sukkaru koor la tudd te loolu lislaam xamu ko koor danañ ci lekk suukar naam waaye danañ ci lekk lu dul suukar lu tax tuddewuñ ko yàpp koor yàpp ganaaru koor walla suppub koor wala maafem ko waaye suukar suukar soo xam ne joxeetuñ suukar waaye léegi dañuy sasu ci di joxe ay tusi di joxe ay dal joxe ay montar yu cher ba am na ñoo xam sax bu ñu leen ñu ngi leen di indi suukar koor si bu subaa mën nañu faa xëy dem bañ ñu fekk leen fa ndax fitna jëleen ci nar a fekk kooku nekkatul sukkaru koor waaye sukkaru koor la nag loolu tam di dina xamu ko te moom itam ñu ngi koy joxe ci anam gu nekk kenn ku ci nekk dana ko wut ci anam gu ne dem jox ko ñam ko daan jox daaw ak lu jamono naqari naqari donte da koy sàcc wala mu carte ko wala mu leb ko te na ko ne du fay loola it dox ci ay tànk jëm ci lu dul noonu ko dañ koy tere di ko jël ci sa loxo di ko xalaat ci sam xel waxuma la dem jox keneen mu lekk ko muy law di dem mbaadu moo tax léegi ñaan yu bari yi ci koor gi yu ci bare bare bari dañu ñaan ba sonn rek yàlla na tekk dañoo amut réseau dañoo amut réseau seen diggante ak yàlla waaye bokk yi yooyu yu bari la waaye su ma ci junjoo yooyu doy na waaye it télévision yi ñoom itam kenn demul ñu des fi ne bu juróom benn waxtu xase ba jot nga xamne nit ñi dañ leena warona andil ay woromi xam-xam ñu leen di suxatal seen ruh ba lañu dog ci waxtaan wu leen jege lu leen jege lu ñuy mëna laal lu ñuy mëna laal waye dedet télévision yi nek Sénégal yépp bu ci nek amna ben musalsal bu muy def ci koor gi di ko ñaawale ñi woor ak di ñaawal yàlla dangay ngay dégg ñu naan kooru aas aas daa am koor wala koosu élage wala kooru kooru njuga kenn ci ñoom amul koor am na lu ñu koy ñaawale di ci ñaawalaale yàlla di ko di ci décourage jullit yi di leen du garawut maa ngi ci gis boo xam ne euh, <coughs> xale bu ndaw boo xam ne ci wax rek la toll message booba dara ci àdduna jëru ko ci ab jullit dañoo wane nguur soo xam ne France la bàyyi ko ñëw vacances Sénégal dal ci ak kër nekk fa ak najaayam ab xale bu góor mu gis xale bu góor bi yi lekk ci bëccëgu weeru koor ñaari baat yi wax ne ko wóoroo tu n'es pas tu n'es mu ne ko mu di ko mu di ko junju ne ko bu ko kenn xam na yem sama diggante ak yow bañ demee bay dog bay joxe ya ñuy joxe ñu waroon mburu ak ya muy àndal xale bi ne kii wóorutoon mu ne lu tax nga wax ñu daal di delloo ba mu ko gisee yaay ja àndaloon ne ko noo ko gi def ba gis ko te gisuma ko man lu ñu junj foofu mooy lislaam amatul ci réew mi ndax ñi ne ci réew mi dañuy nax yàlla ci seen biir koor di dog waaye ki koy gis tey wax dëgg moom mooy gone ko jóge France gone ko jóge France moom wax katu dëgg lay doon lu mu xam na mu ko gisee la koy nettalee waaye ñi mu fekk Sénégal ñuy ay mag ñoom seen diggante yàlla dañ cay wor di wor seen diggante ak nit ñi doonutuñ ay wax waxkati dëgg film bi loolu la mas ne ko caa jàngate nga gis ñoo xam ne dañuy doon ay ilimaan ci biir théâtre bi ba noppi suñu sëlmalee ci jàkka ji tusubaar dem ci këru këru sàngam ñoom kër diw ñoom ñu toggal leen fa ay mbaxal yu waliyun wa latifun kaana lii wa xaada lii wa jaada lii wa saana lii ilaya xaada al ahadu al akramu min al muna لي قاد باخ ولطيف أكرم دنيا وأخرى ما به أكرم زال الأذى عني قبل هكسسي وحصل الفراق عام دكسسي رد إلى سوى li ñu bëggaloon nañu mooy ku mën a dakkaarloo te yéen di wax bu leen ko gëm ndax li muy wax ak li muy def du benn waaye wane nañ ci it koo xam ne day yedd baayam ci lu tax dooma yee ñu julli suba lu tax booy jul dooñu gis ko xamne day wax ak wa këram ñu lank waye sa su nek li muju am rek gor gor lu dal sa su nek ñom ñoy na ci ñoy am toor loolu it nitug diine am na ci wàll ci sketch ci daw ci télévision bi ci waru koor bi di ñaawal diine ak yalla sms yi ak grand théâtre ci bopam guddi Seydina Muhammad ak guddi Seydina Muhammad xaaju ñoo bokk léegi ñëpp dugg nañ ci conférence gàññ waaye conférence yëpp bokk yi ci ëpp ay bakkaar kese la fa nit yanoo ba dis genn boole ko kooram su ko defee dàq na kooram kor ko dem su ëllëgee bu tàllalee loxo yàlla ne ko sa damaa wooroon yàlla ne ko wóoroo woon ni ko ngóor soos waxe kon yi am ci koor gi tey lor ab jullit ndànk-ndànk te du ko yëg mi ngi nag gañ te yooyu ma wax yépp ñi yor télévision yi ñoom dañ ciy gaaw am ci alal ndax sketch yooyu ma wax li muy juunu juunu ay société yu mag ñoo koy fi euh, ñu koy wax sponsorisé sponsor mooy sàmm ko manam jox la alal ji bari nga man ko tek kon ñi nga xamne dañ ci am ñu aji ci ñom te ñi liggé ci compagnie yoyu na leen woor ne caisse yoyu mi ngi fess ci lo xamne yalla gëremuko waye ñi ngi fay itam ñu diko dundé it ñi ngi dund ci lo xamne yalla gëremuko di yàq pas pass nit ñi di leen ko waye falal ba ku am pastif sax su dee waxati ñu ne ah ko kamel noonu rek la bokk yi demoon nañ fi ba baatu bàyyi éli amusul benn njariñ ndax ay mag lañ jël ñuy ñaawal yàlla ñuy ñaawal yàlla sàkk ci koo xam ne élimaan la muy caaxaan di foo xam galanu tëgg xam saañi bitéel yi lu leen mu xam ko ba bu ñu toñ dina bu ñu toñ sax dinaa ko bàyyi éli nga bàyyi éli te moo ne cir boobu ak am maanaa ci diine waaye jaar na ci rajo yi ak télé yi rawatina ci weeru koor yi fees del rajo yi ak télévision yi bu ñu waxee ñaari baat ñetti baat daal di génn ramadan mubaarak dañuy caaxaan rek jullit yi suñ ko mënee dindi ci seen loxo na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxewoon ku ko ci mën a dindi na ko dindi ku ko ci mënta dindi mu naqare ko mu bañ koo seetaan bañ ko seetaan bañ koo taal ci këram sax bu ñu ko bëggee taal bëgg koo bëgg fa campé mu fay tale bi wala mu coupé courant bi tëj buntu këram toog ndax bu kenn day liggéey fukk di ko yàq bu kenn day si fukk di sol pënd mën naa bari waaye pax du bari waaraate yeeg yeete yépp bari waaye télévision ak rajo yi dañ koy yàq ci ñaari minute dara dootu fa nekk ñi nga xam ne kon am nañu kàddu weeru koor wi agsi na du joxe ay ndoxu kese du tok di deglu kuy jang alxuraan wala kuy jang alqasida kese kese waaye ñi wor dañoo war di yobale jotaay buñ tok dañoo war yobale dara ab yobal ci koor bi waaye musi sukkar yi bokk yi jabet bari na lol deug deug ko war jox yetti musi sukkar euh yalla yalla fay waaye aada ak cosaan mook diine du benn diine yaar lañ ci soxla ixlaas lu ci yàlla moom ak lu ci yàlla moomut te am na ayab alxuraan boo xam ne ci laay jeexale yàlla mi ngi nettali ne am na ñooñ bu jëkkoon ba lislaam ñëwagul suñ masaan bay dañuy fab mbay mi ak jur gi ko doon bay séddale ko daal ne lii yàlla yi ñoo ko moom lii sama waa kër a ko moom lii nangam def ko ay xaaj waaye ba lislaam ñëwee yàlla def na yonent bi ñooñu ko daanañ ko def waaye na nga xam ne yàlla daa am fu tàmbalee yam fa képp bu ko ci kenn booleel lu ci bokkul la ngeen tàmbalee ci seen biir ku ñu mën a dem di jaamu yàlla si moom ndax bëgg lu ko neex ba far mooy ca yàlla yàlla ne du la du am lu mu la faye moom te la nga yoroon di ko ko jox yëfi yàlla la la nga koy jox bàyyi xelit sukkuru koor waaye nañ bàyyi xelit sketch yi ak série yi daw ci télévision yi tey yàq diine di ñaawal yàlla ak judditi yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimin